Haile Mubia sa la wala rose la man maa gis wala sama bëdee fulu Somo. laa daal def di jëm sumo l' enfant série da ngeen maa dem mais ragal du la laal de ragal du ma jege demu sax bay ragal mais noo belle ni macha consommation locale gis naa la yéen lay eh sa veste ngi baax waaw mais Sénégal am na fi eh doomu ngeen maa den de l'Afrique yaatu <laughs> Africa design la jaajëfoon naa la bu baax baax di jëm moom ñoo ma dem ma eh maa wax loolu lii ragal du def ay ca maa ngi lay nuyu di la ziar nuyu mbokk internet yi maa ngi lay bu baax mi nga

émission bi. daal di dellusi wax rek ci suñu deuxième émission waye ku da fay daal di jum mais duma faté fàtte benn yoon nga xamante ñoma ñoo ma mo moom moo njaay peccum neex bu neexee ndey ja japp ci mbagg ya kon man samay mbag buñ ci taxawé ba ma mëna dox mhm. rek kon la Bia Family ñoma ma dooleel. à travers Bia Family dama ci lim ki nga xamante ne ki nga xamante modi moo di Pape Kara. nee naa la le grand bambis Pape Kara. Mhm. Mhm. ba bu nee ba tay newul no damay daal di dugg banlieue rek seet géej seex géejawaay daal di dem ñaari tali seex ñaari tali waye du fàtte benn ki nga xamante ne moo di Babacar xale yoof ku lim dafay daal dee jum ñu dellu siwaat rek ci plateau bi di jëm alors àdduna noonu la mbër buy bëre koo xamante ne da ngay ci mbir bu la nit ñi di topp da ngay dem ñu topp la kon nag les amis de DJ Momo maa ngi leen di bu baax a baax gis naa seen taxawaay ci man comme ni ko waa Biya famille di defee di wax ne lépp benn la fii Sénégal la alors Biya lan nga ñu àndil tay ci li nga xamante ne moom mooy ci rubrique bi nga xamante ne man du ko tudd ndax dama ne man moins de douze ans aw ma douze ans. <laughs> rubrique bi sax da lay arrangé comme yow célibataire nga eh. te dangay wax da ngay soxla énergie bu baree eh. bëri am nga fi yóbbante démb internet yi dañoo commenté ba dama sonn moo tax ma ne leen tey nañ teel a jël seen big ak feuille waaw bind noté su may wax ñu noté ñun tamit ñu wax liñ ci bëgg jeex na ay jëm yaa bismillah <laughs> noonu laa lay jaajëfalee bu baax a baax di jë Momo Ndiaye nee naa leen maak moom nii lay demee saa su nekk la dieu de choc l'enfant série de ngeen maa deen tey dama andi lu doy waar la pomme wala ananas bi c'est trop. limon. <laughs> bii ban la sax bu Casamance bi la wala ban la. non bii bu Casamance bi la Maroc bi bi mooy am ndox. Casamance bu jeexee rek jeex bu jeexee rek jeex na bu xaayee rek ñor na nooy na <laughs> aja yaa demal ci citron jaajëfal naa la bu baax a baax ginnaaw démb bu ñu àndee li nga xamante ne moo di cet ci biir néegu sëy comme mm-hmm. émission bi civisme comme émission bi dafay wax ci li nga xamante ne moo di jonge mm-hmm. démb ñu ci décortiquer leen nan la nit war a mën a jógee ci biir këram ak jonge li ci njëkk muy set démb mm-hmm. mooy suñu première émission tey nag deuxième émission bi dañuy waxee li nga xamante ne da lay dooleel may la kàttan may la énergie force ndax Sénégal Ndiaye dañoo baaxoo. I <laughs> xam nga moomoo dafay laaj yow nga liggéey ba sonn wàcc yëgg rek defal naan sa jus citron normal fekk ñu filtré la ko ci un litre d'eau xam nga tey jii par exemple sénégalais yi dañoo yaakaar ne limon mhm. dama bëgg ami internet yi nag ñu daal di noté mhm. en plus de cela ñu may dalle ci commentaire bi mhm. li nga xamante ne suba dañuy toogaat fii jàllale ñi nga xamante ne commentaire nañ ci limon parce que limon dafa essentiel moomoo des fois nit yaakaar carnet limon ñu ci bëri boo ne limon dañoo yaakaar ne da ngay teg sa boolu ceeb rek dagg limon loolu mooy njëriñam. ñun de loolu lañ xam. am na solo surtout ñaari cin nag dañ ko bëgg. ñaari cin moom bu ñu amul limon rek baaxul. waa Samber bu ñu amul limon ñaari cin rek non pour ñoom saful. Eh, surtout yaasa. waaw limon li muy jëriñ di moom dafa bari.

Diallo. Mhm. moom souvent buy togg ay ornechan la muy gis muy tàgg limon bi di ko teg léegi yow da ngay ñëw di bës affaire bi daanaka day day nice quoi ba pare temps booy bu ñu mësaan didim sedd bi jamono bi suñu yaay dañu ko daan diw si yaram bi. xam nga loolu noonu dafa ay didim am na diw limon sax. kii am na diw li moom maanaam li muy jëriñ moo bari da nga ciy lekk pare utiliser ko utiliser ko mën nañ ci wax tey fii ba suba duñ fi jóge mais dañ ciy tënk rek wax ci li nga xamante ne moom moo ëpp solo mm-hmm. su ma la nee baylee atturance la protection la mm-hmm. parce que limon dafa baax sax kon yow comme man mm-hmm. nga jël benn doom rek def ko sa biir saak nit ñi dañu naan par exemple nit ñi bu ñuy wax ci yow soo bàyyee limon bi sa biir saak une semaine boo xoolaate da ngay fekk mu wow samay poos da laay wut <laughs>

te naturellement lépp suñu biir mhm. beneen bi mooy mhm. limon dañ koy def jus mhm. énergie la ñëpp boo waxee dañ koy def jus dañ koy naan tout le temps am na ñuy jàpp na tey jii limon dañoo sew wala dañoo dañoo ndaw waruñu naan limon pourtant am na ñuy def ay transformation jigéen ñi xam nga li ñu naan consommer local souvent ñi ngi liggéey ak seen propre moyen xam nga ñoo xam ne ay association la ñu doon ay mouvement des femmes dañuy jël limon bi di ko transformer di transformer limon bii nii doom bii nii que ni nga ko mën a daggee mu utiliser ko non nga ko mën a rincé mhm. wala nga mixé ko mhm. mu nek jus limon mën nañ ko utiliser bari mhm. am dañuy sonn wala ñi gaaw sonn un deux trois nga gis ñu yu metti wala fatigue surtout ci seen dama leen di conseiller ngeen jël ben verre comme ni ngeen di défaré seen café matinal wala comme ni ngeen di défaré seen lipton ngeen di seen verre limon bi ci bi jël partie bi def ko ci lipton bi jël touti def ko ci ji bu garaaw mi ngi noonu da lay dimbale ci lu bari bari sa wërgu yaram mhm. mais aussi tamit da ngay gis sama mbokk jigéen ñi di faral di def ci junjeex mhm. ni mu lay mën dimbalé ci lipton bi mhm. non la lay gëna renforcer boko ko defee ci junjeex rawatina tey jii nii booy sentir na yow sa yaram ya ngi fatigué tout le temps tout temps dañ lay conseil même docteur yi dañ la koy conseil dañu naan nga jël ben limon jël ben 1 litre ndox dag limon bi def ko ci bayiko ci frigo bi def ko sa ndoxu naan su da fay raxas su ma parewaatee foofu noonu damay dem ci sama mbokku jigéen ñi mm-hmm. li li muy jariñ dafa bari mm-hmm. sama mbokku jigéen ñi mm-hmm. tey jii par exemple am na ñoo xamante ne ay xale lañ mais dañ leen di aider pour mu renforcer leen day raxas bii day nettoyer jigéen limon bii nii dañ koy defee gommage jëm dañ koy defee gommage comme yow nga wàcc nii rek sonn yegg dem jël limon bi jël tuuti suukar ak benn kuddu café gént axlu fonde yóbbu wante nañ ma ci yow. ñu ngi koy wax ci commentaire bi. ñëpp jeex nañ sëf Momo Ndiaye loolu il faut bu ñu paree fii ñu woote si Ah, parce am na ko signalé fële <laughs> euh, parce que ànd ak ñëpp tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëpp jaar. Ah. limon bi attiré ku ne am nga sa xadi ñi am seen ajaa man sama ndeya. Ah, maa ngi sama ndeya def ci <laughs> Momo Ndiaye gis nga lii. Uh-huh. tey jii boo wàccee mm-hmm. sonn. à part madame ni nga ko mën a utiliser ci kanam. noonu lañ ko mën a utiliser ci yaram. noonu aussi lañ ko mën a sangoo. bi ci njëkk mooy limon bi nii mën nga koo rincer. def ko tuuti jël ndox mi. jël kuddu suukar. def miel mhm. def kafe gomee ko sa kanam bi kon daal su ma la déggee biyaay mooy daal li moo daal liñ naan ko yaa bëri njariñ. yaa moo bëri njariñ maanaam na suuf man na caa. mën na caa na ci kaw mën na ci suuf. mën na <laughs> la te ni nga see gisee sax. <laughs> Uh-huh. soo xefee sax man dama la koy utiliser wala ma utiliser la ko ndax nga jar nag. moom sérieux <laughs> ah biyaa loolu boo ko defee dina ma gënal ndax maa ngi koy xaar loolu moom. ça me fait de plaisir man du ma tontu benn provocation wala benn gaaruwaale gis naa seen ay commentaires. commentaire yi lu mu wax ma limon bii nii loolu kessé du njëriñam. Mhm. nee néna ma dafa bax ci tank yi xar. Mhm. dafa bax comme nga koy maase wo sa yaram. Mhm. mu ñi ci bëri ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi nekk teint noir yi. dañuy fara sax ñom diko diwo diwoo. di parce que day tax sa yaram yi bañ am. ay ñaar ñaar mais xam-xam soriwul dafa laax rek. dafa laax dafa dafa dafa maanaam dafa laaj nga def ci ay recherche. kon sama mbokk yi maa ngi leen di wax. ñuy ñuy faral di utiliser limon ci lu bari. mën nañ ko def jus limon. diko ko naan limon kessé un un verre un litre d'eau nga commencé ci sa limon bàyyi mhm. ko sa frigo. Mhm. soo liggéey yow ba wàcc sentir coono. mën mhm. nga xelli kaas naan. am na ñoo xamante ne dañ koo ragal nag parce que dañoo jàpp ne limon day. jeexloo nit maanaam waxuñu nit ñi information bi carrément quoi. carrément fekk na du du ci ceeb kese nga ko mën a utiliser. luy jeexloo nit kay boo ko utiliser ci ceeb sax mën na laa jeexal. mën nga koo def ci sa kaas lipton. bool kook naanaa. ak suukar dafay faj fatigue beneen bi si topp moom mën nga koo def gommage kanam beneen bi si topp mooy limon dañ koy frotter. Hmm? waaw massage wala frotté massage kon pourtant damay bëgg di génn pour ñu massé ma dem mais dama dul ñeme quoi <laughs> ah boo amee ndeyaa day yomb ah kon man dama bañ dem ci tali rek xool boutique di massé da waaye nag sa xel lu dal soxna bu sa fàllu maa ngi lay ziar depuis yëmbal li am na Sophia aussi laa gënaan animatrice depuis Tivaouane Pël maa ngi lay sargal bu baax a baax a sama cousine bi moom itam ma nga ca diwaanu Touba guy mbind Arab Diop aram man du la sax yow sama takku dana jox ma ba pare Aminata Camara est-ce cotiser la ah yàlla baax na man daal lu fa waay am rek lu des foofu dama jox. bu leen tax Momo Ndiaye wàcc jël limon bi. <laughs> man daal déggoo li ma la wax soxna Awa Faye depuis Colobane maa ngi lay ziar baax a baax bon anniversaire à Soda Ndoye madame Ndiaye dundal Dora Sarr Sarr Couture aussi joyeux anniversaire. ayca Ami Sow sama xarit nee na ma Bia Camara li ci am li ci gën a am solo mooy. Mhm. mooy limon bi maanaam jigéen bu gisee mbaax ba pare. ndeysaan nee na dafa am ay normes yoo xamante ne jigéen moom lay moom moom moom lay gisee mbaax. Mhm. maanaam dafa am ay signes yoo xamante ne moom mooy ñëw ci yow. Mhm. ba pare boo paree eh, boo paree gis mbaax. dafay faral sa kanam bi di ritax. wala di am ay progrès. mu ne ma limon bii nii dernier jour yi nga xamante ne moom nga gis mbaax. maanaam boo paree ba set nee li ci gën a garaaw da ngay jël tuuti ndox nugal ko. Mhm. jël ñetti couronne de girofle. Mhm. xam nga couronne de girofle may lan. français ngay làkk wala olof. français laay làkk. non boobu xaw ma ko. couronne de girofle mooy xorom polle. Ah, d'accord ñun olof lañ xam xorom polle <laughs> ay ñoom jar. yooyu waaw xam Serigne Saliou seen sa xarit mu ngi lay nuyu depuis Paris <laughs> mu ngi lay siiw depuis France. Serigne Saliou maa ngi koy hmm. fay maanaam nga def bu dëgër wax hmm. naturellement bañ fee nekk di jonge ñëw rek ne kii nii su ma waree wax junjeer ñëw rek ne hmm. <laughs> junjeer. xam nga waa France dañuy prononcé naa la junjaar. te daay bi mooy tax loo wax dafay def effet. may mun a soog a mi ngi lay nuyu depuis Tëngéej ñeena célibataire bu yàgg baaxul. maa ngi koy célibataire bu yàgg day def loo nit. est xam nga la may mun a soog a doxale daal tuuti rek doxale de <laughs> waxuñu atam nag ak Ami Sow nee na ma uh-huh. dem Sow. ma ngi koy madame baax maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. moom tamit ndeysaan bi mu jàppee ba tey bàyyiwul. mu ngi passé ci commentaire bi dañ ne mm-hmm. jigéen bu faree di pare di pare gis mbaax. waaw nee na dafay nuggal li nga xamante ne moo di ndox. ndeysaan jël tuuti ndox def ko ci verre. Mm-hmm. jël ñetti clon de girofle uh-huh. def ko ci <laughs> dagg dagg limon bi yaa damay ree da ngay ree noonu. non xam nga ñetteel dañoo pare. dañ naan hmm. aaw buuru këram ah. ñaareel xaritu jëkkëram wala ñetteel ñetteel mooy lan ñetteel kay fay daal la mu bëgg a rey ay maman fay ama moom ndeysaan dafa pare <laughs> maman ah. jaara bu Sénégal lu fubal sax day defar maillot def ci numéro 3 te moom troisième dame troisième moo yee nag ndax maman xam na ne kenn toppaatu lii di wax yaa yaa ñu ko gën a xam maman jaara moom moo gën a li ngay wax de moo ñu mas lu leer naa lay wax maman jaara fay <laughs> waaye yàlla baax na du ma leen faale sax wax leen lu leen neex bàyyi leen ñu commentaire dafay gën a neex chers internautes seen kàddu mhm. ngeen bàyyi ñu xel bu baax a baax en plus ngeen wax ci commentaire yi mhm. utilité bi nga xamante ne mhm. yéen beneen manière bi ngeen ko xamee xam nga ñun dañuy proposer rek parce que dañuy def gëstu wax ci li nga xamante ne moom lañ xam mais xam-xam dafa yemut ba pare xam-xam tolloowut et gis naa ñuy bind aussi lu am solo li ngay wax nii gis naa ñu aussi sof ci yokk yeneen yoo xamante ne dafay am solo dafay am solo comme par exemple madame Bax mii di Ami Sow nee na jigéen bu faree di gis mbaax ba pare ndax dafay am yi des ci biir bi nee na limon mii moo koy raxas ba mu set day tax doo am xet te xet du des ak yow nee na ni koy defee mooy ni ñu koy utiliser da ngay nuggoo tuuti ndox def ci ñetti clone de fu ñu gën ko xam ci xorom pole dagg benn limon def ko ci xaar mu xaw a sedd nga naan ko su ko defee da ngay gis mu raxas li desoon sa biir bi yëpp beneen bi si topp mooy Aminata Camara nee na limon ni nga xamante ne nit bu xale jigéen bu gisee mbaax ba pare mhm. noonu lay dimbalee tamit jigéen mhm. ak góor yëpp ci nite mu bañ am ay perfection. merci kon xam nga li ñoo am na utilité. kon tey lii laa leen indiloon ci limon kontaan may permettre rek ma jaa jaajëfal bu baax a baax ñi nga mm-hmm. xamante ne ñoom ñoo ma gunge. Mm-hmm. parce que tamit saa su nekk dama koy wax ni naa peccum niir bu neexee ndey jaa jàpp ci mbagg ya. Mm-hmm. waaye man du ma tay di jëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moo di sama yaay. Euh, di ñaanal bu baax a baax ki nga xamante ne moo di suñu papa ju tedd jooju noonu muy Alaaji ji Camara. fa la ne la mu tëdd ci kër Massar yàlla suñu borom oy fa suuf ci mboolem ku ko xamante rek mi ngi tëdd fofu non ci cimetière yu keur massari nonu lay laay bu baax a baax mon ami mon frère Cheikh Waly dj Cheikh Waly néna lu fee nek ci xol rek fay si kanam ci nominé meilleur animateur de l'année de l'année vraiment ñu ngi lay souhaiter raay ëllëg bi ñu koy ñaanal mu jël ko ba ñu fekk ko ci ndax moom suñu fierté la Zik FM bu Saint-Louis Atlantique FM ak Zik FM mon ami mon frère dj Cheikh <laughs> Waly ma ngi koy béggee bu baax a baax <laughs> noonu laay jaajëfalee bu baax a baax sama grande sœur de valeur Aminata Camara mm-hmm. mais duma faté aussi ben yon ki ki nga xamante ne moo di sama ami d'enfance maman Salimata Cukal mm-hmm. koy jaajëfal bu baax a baax ndax xale la am jom moom Zidane Sow daf ma naan biyaa loo namm lu nekk ma toggantu ko nga permettre ma rek ma jaajëfal bu baax a baax riposte yi madame madame Sow madame Ba mm-hmm. ami saw mm-hmm. aussi du may jaajëfal bu baax a baax sama doom Mbooñaan nuyu naa aussi bu baax a baax ki nga xamante ne moo di euh, ki nga xamante ne moo di Aminata Camara ba tey mais du ma fàtte maman Salimata Cukal jaajëfal Diallo aussi damay jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moo di ma femme de valeur Fatimata Fatimata bu Moussa la Saint-Louisienne di tàggatoo bu baax a baax ci xaj yi madame Guèye waaye aussi jaajëfal yow Momo Ndiaye merci jaajëfal bu baax a baax waa Rési nuyu bu baax a baax sama sista bi nga xamante ne moom laa fekkoon di delloo lengee ki nga xamante ne moo di pël bu rafet merci beaucoup kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax merci beaucoup Assisa bi yaa maa ngi nuyu sa xarit tamit Coro ah borom seen kàddu moom mooy suñu premier fan ci kër gi Coro ñu ngi lay yi wax kooku ayca di daal di dalal ki nga xam ne moom mooy Ndeya aussi dina ñëw léegi ci rubrique bi nga xamante moom mooy société Ndeya exil exil ci plateau bi ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax waa Signé Info